héro warul xaar euh, ñagas-ñagas warul xaar daal lépp loo xam ne situation bu défavorable la maanaam neexal beeg kado yeeg nabbi nabee bi ak euh, woyal bi dafa war a nekk ak pecc mi sax yenn saa yi mhm. nest pas parce que jàpp naa ne euh, jigéen ñi ma gis ñoom jàpp nañ ne ku ci nekk ak na nga koy neexalee am na ñoo xam ne sax dañ naan la feccal ma nest voilà ñoo xam ne bu suuf seddee. <laughs> dañuy dañuy <laughs> <laughs> donc ñu war ci def tey nag taxaw seetlu. Mhm. ku nekk joxe ci xalaatam. xool lan moo waral loolu. lan moo waral euh, tant que euh, jafe-jafe amul rek tant que xuloo amul. tant que euh, réeroo amul neexal du jib ci jëkkër jëme ci borom euh, ci soxnaam ñii ne d'accord nañu ñii ne d'accord ñu mm-hmm. n'est-ce pas ku nekk di nga am occasion wu wax ci nga xam ne noonu nga ko gisee ñi ci d'accordul man benn ci laa bokk parce que man gëw ma ne góoru Sénégal bu ñu jàppanteek seen soxna rek lañ leen di doog a neexal man gëw ma loolu xëy na keneen gis na leneen gëm na leneen parce que dama ko wax pour le pour deux raisons la première mooy wax walla jëf dañu ko looy jooy mu wax ñett dañ maa wax walla dañ maa jëf te jëf jotagul walla dañ maa jëf bi bi jëf paase walla dañ maa jëf te waruñu maa jëf n'est-ce pas lii bii dañ maa jëf wala dañ maa wax te waruñu maa wax bii dañ ma wax dañ ma ko wax bi mu paasee bii dañ ma koo wax bi mu jotagulee muy trois équations mm-hmm. man ma jàpp ne gisuma man ci lu extraordinaire pour que borom kër am fu mu tollook soxnaam ci jafe-jafe ci euh, jàppante ci xat-xat tubaab di ko wooyee zone de turbulence effectivement nga poser acte yoo xam ne euh, pour delloowaat jàmm la parce que dañuy wax ne effectivement lu dul jàmm lu ne jàmmaa ko gën man ma wax ne euh, cere ju niin kay ca la diw cere ju niin ca la diw dàqee je euh, je veux tout simplement dire que ki nga xam ne jàppante ngeen yéen ñaar surtout na rawatina nag su fekkee ne yaa tooy parce que xëy na su ma amee fu may d'accord tuuti foofu la foofu lay doon parce que pour man ki nga xam ne yàlla boole na leen yéen ñaar muy nekk ñaari way dencante yi heure bu situation taxawee rek am na foo xam ne fa la sooxe ak loo doon doon boroom kër ak loo rëy rëy rëy rëy rëy ak loo lu sa marta bu mën a toll war ngaa mën a am oyof bu toll ne xam ne man mii kat maa nekkul ci dëgg boo yeggul ci baalu ak sax te man gis naa ne yegg ca sax amul problème war naa mën a ànd ak effectivement neexalante ak ak loo xam ne mooy tax jàmm dellu si ndax j'ai souvent l'habitude de, de, de dire mënumaa comprendre euh, nga bàyyi góor ñëpp ne man nga tànn man ma bàyyi jigéen ñëpp ne yow laa tànn ba pare ñu war a dëkk ci safaan wala ñu dëkk ci defante donc effectivement damay daal di mën a comprendre góor ki nga xam ne duma wax ne bu bu bu jàppanteeg soxnaam rek ci lay joxe kado waaye xëy na ci lay gën a fés ma gis ne y a rien de plus normal que situation bu tolloo foofu góor posé acte boo xam ne dina dellu ci jàmm pour war ne effectivement lii kat seytaane dugg na suñu diggante waaye tey laa la gën a bëgg tey laa la gën a mën a protéger tey laa gën a xam ne effectivement sama wareefkat kat mooy protéger la mooy iir la mooy aar la mooy dalal sa xel mooy defal la. wax dëgg yàlla damay am nag habitude di faral di wax benn affaire xëy na ñu ngeen si d'accord xëy na duñ ci d'accord damay wax ne mbir mi gisante la gisante bëggante. waxante ñu maye ngeen war a dund jàppalante yiirante yërëmante seede yàlla non dafa soj te su ma noppi wulee da ngay continuer di di ci suuli ba keroog émission bi jeex ah, waaw gisante la bëggante waxante ñu maye ngeen war a nekk jàppalante yiirante aarante yërëmante muñalante yéenante jàmm yéenante ci gàttal. parce que dama gëm ne ci dox doxu àdduna foofu la àdduna toll. amul dara loo xam ne gëm naa ne instant bi nii war na góor warul jigéen su àdduna doxee ba ba ba ba effectivement ñëpp nangu ne toll nañ foo xam ne yoo xam am na am na àdduna kat dox na ba toll foo xam ne am na loo xam ne mënatul ñàkk ci jigéen. ñu war a nag effectivement nangul ne moom tamit àdduna war naa mën a dox aussi ba góor comme ni ma wax fépp foo xam ne war na fa mën a féete soxnaam rek soxnaam war ko fa mën a féete moom tamit. muy gisante jàppalante yërëmante yéerante bëggante euh, nu mu tuddati aarante. voilà en attendant que gars yi joxe seen euh, seen seen gis-gis. Mm-hmm. gëw ma ne encore une fois góoru Sénégal. bu ñu amee jafe-jafe seet ay soxna rek la ñuy mayee cadeau man gëwuma loolu man. d'accord nañu <laughs> nañu tourner directement ci euh, benn euh, est-ce que cadeau la ñuy wax sax mais xalaat rek mën na bañ a nekk sax cadeau mais être être chou avec euh, ta femme. ta femme bien être xam nga daf ciy baax daal. waaw ah, baax na si de mais ni ko pros libalee moom dafa wax li nga xam ne moo war a am mais ñun au Sénégal culturellement. dañu gëmloo góor yi ko boroom kër warul baalu àq jabar loolu lañ gëmloo góor yi dafa jóge sañuy maam wàcc di dem di dem ba nga xam ne góor yi ñoom waratuñu baalu ko ñoom pour ñoom ñu tooñ bañ a tooñ jigéen bi moo war a ñëw sukk jox leen potu ndox ne leen baal ma àq parce que bu ñu boo gisee bu ñu xuloo sax bu ñu wootee mbootaay mag yi fa toog la plus plupart du temps du ñu essayer comprendre ban problème moo am kan moo tooñ ak ku tooñul dañuy ñëw rek ne xam ngeen lan la waaw wax ji am na nii eh Fatou jógal nga sukk baalu Cheikh. baalu sa kilifa. baalu sa kilifa sans compte comprendre lu tax faatu ñëw ne leen kat man yaa problème wax leen ak kii ñu ignorer loolu mais yàlla dafa may jigéenu sénégalaises yi ñuy muñ. góor daf leen di def ñuy denc ñuy denc di denc di denc di denc di denc ba bu ñu demee ba mënatuñu ñu sës ne ko xam nga lal la il est temps nga dem te beaucoup doom defoon nañ fi benn émission suuf en silence parce que gëmuñu woon ne ki ñu nekkal dina musa toog ne leen ne ko da ngay dem ma dem en ce moment nag jàq am jàq bi mooy lan bëggul jabar ji ne ko may naa la baat li mu bëgg mooy ñu jéem a régler problème bi mhm. fekk bi muy def xalaatul woon si àddunaam ne kat jigéen dina ko ne musa wax moom jabaram jooju ne ko arrêteel quoi parce que xam naa ne maak yow chemin bi ñu bëgg a defar mënul ne ku nekk dafa war a dem baatam à en ce moment si la jigéen ñi di xamee kii valeur am naka lay ñëwee pour aborder waat leen pour neexal leen. Mm-hmm. si la cadeau yi di commencé génn. loo bëgg ma defal la si la chéri yi di commencé génn si la bébé yi di commencé génn di neexal mais am na jigéen yoo xam ne loo munti neexal dañuy ne cocc di lay xaar loolu ça fait souffrir un homme te comme ni ko Pros waxee en domaine de couple rëy waru fa am bu fekkee yow da nga am problème ak sa jabar sa njëlbeen ba jéem ko régler balaa muy raw. parce que bu demee ba sës am na jigéen yoo xam ne bu ñu xësee ba sës ba ne c'est fini pour ñu indiwaat leen peut-être yàlla moo si xëpp ndox bu sedd mais pour ñu nar a ñëwaat nara a vivraat calvaire bi nga xam ne góor baa ngi leen ko doon teg duñ ko nangu. Mm-hmm. donc su boobaa ñoom quitte ka ñu wax leen lu ñu leen mënti wax ay doo sëykat ndax lii rek a tax ngeen xuloo ndax lii rek a tax lii lii lii te l'homme est jaloux naturellement parce que man j'ai vu une femme bi ma la réalité mu xuloo jëkkëram ba ñépp ne jeex na lan la def mu dugal benn photoom toog def comme marié toog ne c'est madame temps te yàlla xam na ne dara amul woon wax beneen beneen beneen sant sant dugal ko jëkkër ji gis ko gënati nag rakkaaju mm. fu ne mu dem jëkkëram la woon jëkkëram la woon mais dañu am problème tas wala non dañu am problème mu ne ko jeex na ku nekk dem dañu tas mooy séparé wu nañu non non tas ak séparé lu benn dañu séparé wu. mais may nga ko baat peut-être. mayoon ji nee na ko may naa la baat. ah kon dañu tas na. non mais peut moom comme ni ko góor yu bari di waxee may naa la sama baat. may naa la baat moom fu mu. ñu ne la sëy ba dog na. déedéet. mais si. non defal ndànk am na loo xam ne dañ lay ne il faut mu am xaw ma ay quatre témoins. amul benn témoin xaw ma affaire yooyu. non fase naa la sëy ba dog na. loolu sañu xam-xam yeggu si xam yeggul yow. yow ak yow. waaye doo ko buñ la ne may naa la baat ba tas na sëy ba dog na. yaa ma dégg donc maa la ko wax. lim ko doon def naqari ko kooku tamit am fu mu jàpp rek waa ji gis loolu affaire bi def ko problème mu demaat si kër famille boobu fekk kooku waxul sax ak famille am waa ji gën a dof. mais ce que dafa marié woon wala dafa do waa ji la bëggoon. yëngal yëngal. Ah, kon kenn mu yëngu bu baax. Mhm. solaat ay dàllam. Ah. defaat lu nekk. mais en fin de compte après daf koy récupérer ndaw si baal na ko. pour wan la ne bu fekkee ñun dañu war a xaar pour jàmm am rek ñu neexal sañuy femmes wala pour ñu jox leen ay cadeau loolu y'a problème et y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça da ngay ñëw toog sa kër ak sa jabar ndax ko gisuñu ne keneen bëgg na la wala keneen intéressé noo ci yow duñ la toppatoo non du loolu am na sax loo xam ne méngoowul ak nga nekk ak sa borom kër ñuy gis ne keneen dafa ah intéressé je parle pas ki nekk si borom kër ki nga xam ne da nga ne dafa tas dafa tas xam nga léegi bi waajee mu wane ne moom le gars il va devenir fou te ñu ñëpp fiir góor yëpp góor góor góor yi si ëpp laa la wax fiir te bu ñu ko won seen jabar mm. donc s'il y je crois nga koy tooñ moom muy muñ di muñ ba dem benn instant mu toog foofu nag les propositions commencent ngay seeti ay mbokkam ku nekk di wax jéem a arrangé waat cas bi mu naj fi mu naj moo tax luy jàmm nañu def li nga xam ne moom la ñu war a def avant problème yooyu di commencé parce que une femme c'est une femme c'est nos mamans c'est nos leen di neexal nañuy waxtaan ak ñoom nañ leen di jox ay cadeau mhm. nañuy baalu bu fekkee ñun ñoo tooñ ñu baalu sànq procès ngi ne fecc mais feccal sa jabar dara nekku si tu peux danser pour ta femme yéen ñaar la keneen nekku fa même bu fa keneen nekkee tu t'en fous parce que c'est ta femme. Mhm. quel est le problème donc dafa am yoo xam ne ñun def nañ fi benn émission ñu ne ñun au Sénégal waroo ànd ak sa jabar sax neexal ko si mbedd bi kott ko chuchute kook affaire yooyu ñu ne loolu bokkul sañu aada. Mhm. mais pourquoi. parce que bokk ci. mais ta femme c'est à femme. mais après. yàlla bi nga xam ne moo ne yéen takk leen yéen a moom. waaw mais kooku kañ boo ànd ak sa femme ñeen jàppante ñaari loxo. di doxantu nii mais quel est le problème lañ si war a wax. lan la si war ma nekk ak lan la si war ma nekk war ma dafa am war ma nga jël jigéen oui war ko teg comme comme lan même les hommes